Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce mardi 19 mars 2024 suñu jógee fofu dañuy dem seeta ji kii nga xamante moy docteur Tierno Tune docteur Tierno Tune ginnaw ñepp a ngi def seen analyse mom dal def na ben analyse am jëmale ko ci candidat yi nga xamante ni ñoo fas yéene jiite li nga xamante moy Sénégal moy fukki candidat ak juróom-ñeent ñu naan guléet ci histoire politique au Sénégal ñu jëm ci élection yo xamante fukki candidat ak juroom ñeent ño ci rek ginnaw lool nak ki di docteur Tierno Thioune dafa jël xalimam dal di ko sukkandiku ci ki nga xamante moy Moi candidat coalition coalition Benno Bokk di ki nga xamanteni mo fi gouvernement di ancien premier ministre Amadou Ba don na benn pilier bo xamanteni ni suñu sukkandikoo ci lepp lo xamanteni manam mën na don stratégie émergence économique manam tur bi fay dem wuy ji ki nga xamanteni moy Amadou Ba fi ci Sénégal ki ko xamle di docteur Thierno Thioune qui lolu ci xalaatam mom xamle ne que daal kii di Amadou Ba di candidat de la majorité de Benno Bokk qui ci élection présidentielle du 24 mars 2024 fi ci Sénégal Amna ay véritable atout yo xamanteni tay mën na ko conférer jaarle ko ci benn avantage boo xamante ni suñu sukkandikoo ci course bi nga xamante ni mooy ñi jëm ci magistrature suprême pour diriger lii di Sénégal ci avantage yooyu nag kii di Thierno Thioune en tant que docteur xamal ni naka dal Amadou Ba figureum ak expérience am gouvernementale suñ ko diversifier dina don ben leadership bu naturel bo xamanteni bu deuguer la ànd ceeg ay relations internationales ci ben image bo xamanteni manam day dajale don rassembleur ci ben programme politique bo xamanteni novateur lay don ba nopi don lu inclusif sukkandiku ci ay transformateur yi nga xamanteni tay tey dañ ko intitulé l'idée paix envers la la prospérité partagée manam Moyam dans dal di koy wéyal ci li nga xamanteni manam oui wéy ci biir réew mi ba noppi ñu daal di koy seddu sukkandiku ci li nga xamante ne capacité bu mag jaar la ko ci mobilisation ba tey jii mi ngi xamal ni que daal kii di Amadou Ba doon na benn combinaison unique jëm ci benn compétence jaar la ci expérience boo xamante ni pour diriger li nga xamante ni mooy réew la doon benn prospérité bu ñu partagé mu doon fort boo xamante ni maanaam ndëgër laay la ci moom doon ci carrière professionnelle suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy administration fiscale sénégalaise depuis 1988 qui dit di Amadou Ba faut occuper divers postes yo xamanteni continent ay responsabilités la ba nopi mu daal di koy accentuer ba tek ci li nga xamanteni moy nomination am en novembre 2006 comme li nga xamanteni moy directeur général des impôts et domaines ainsi que mu daldi di ci li nga xamanteni moy mooy code général foofu ci impôts et domaines ginnaaw bi nga xamanteni ni dugg en vigueur en janvier 2013 batay mu yokk ci mu doon benn expérience gouvernementale bo xamanteni dafa diversifié wu daal occuper wu lu bare ci ay postes ministériels yo xamanteni yu clé la suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy ministre de l'économie des finances du plan ak ministre des affaires étrangères ak li nga xamante ni mooy euh, premier ministre grâce ak li nga xamante ni expérience bi nga xamante ni jot na ko am jaarale ko ci benn expertise boo xamante ni culture am dafa approfondir jaar si ay sphères yoo xamante ni économique la financier sociaux ba noppi daal ci teg li nga xamante ni diplomatique ba noppi daal di sukkandiku ci li nga xamante ni tey mën na permettre ñu appréhender bépp enjeu boo xamante ni national la wala international bi nga xamante ni lii di Sénégal mën na ci conforté wu daal di proposer ay solutions adeptes kii di ancien ministre des finances ancien ministre ministre des affaires étrangères et ancien premier ministre Amadou Ba conduire na li nga a ni mise en œuvre daal koy jaarle ci li nga xamante ni réussite au plan Sénégal émergent bi nga a ni tey moo valide li nga xamante moy Sénégal am benn croissance économique régulière ba noppi stable et non teg inclusive ak li nga xamante ni tey mën nañ ci jàppale finalité dem transformer lépp lu jëm ci structure boo xamante économique sénégalaise grâce ak li nga xamante ni investissement massif jaarle ko ci infrastructure lu mel ni agriculture lu mel industrie lu mel énergie avec des service pour commenter ni services sociaux de base qui ci ligne li nga xamante mois et septembre 2013 ginnaaw bi nga xamante ni mon ci papa mon devenir li nga xamante ni ministre de l'économie et des finances et du plan mu ben ben, bi nga xamante principale mission la c'est mu réussir ko ginnaaw bu mu si li nga xamante ministère boobu ba noppi de di permettre ñu assurer les lu jëm ci stabilité macroéconomique fii Sénégal ba noppi yëkkati li nga xamante ni moom accomplir d'aller di indi ben maintien de bas niveau indi inflation bo de feu dafa fiable jaarle ko ci ay déficit budgétaire et xamanteni tay suñu sukkandikoo ci l'idée di artisanat clé des ko ci plan Sénégal émergent dafa confirmer wu ci li nga xamanteni moy orientation président Macky Sall gi nga xamanteni mom moko concevoir pour que mon mën tontu ci ay plusieurs défis économiques sociaux yi nga xamanteni sénégal conforte di Sénégal conforté na ce notamment suñu sukkandikoo ci ben taux bo xamanteni bu croissance économique le relativement jaarle ko côté fiabilité bi nga xamanteni moy ben taux de chômage bo xamanteni bu élevé valeurs ginnaw inégalité sociale suñ ko sukkandikoo mu doon ben vulnérabilité bo xamanteni suñu jakarlo lepp lo xamanteni dafa doon ay choc économique dina doon lu externe jaarle ko ci ben vision bo xamanteni li di plan bi ñu dippee euh, plan euh, Sénégal émergent donc ci pays yi nga xamanteni fi ak atum 2035 da fa wara doubler lepp lo xamanteni ben taux de croissance économique la ba nopi dal di diversifier li di économie Sénégal ba nopi renforcer ko ak ay solidarité yo xamanteni da fa nek ci biir société bi si suufu direction li nga xamanteni moy réforme majeure yooyu nga xamanteni tay tey mettre nañ ko en œuvre dina sukkandiku ci ben sens bo xamanteni lepp lo xamanteni da fay améliorer diar ci ay forte expérience yo xamanteni en tant que ministre des affaires étrangères du Sénégal et de l'extérieur ginnaw bi nga ko doonee juillet 2019 au novembre 2020, ci soufou région contacts nga xamanteni lepp luy contact le ko ci aduna bi nga xamanteni diplomatie moo Amadouba, lal di établir na ay relations yu solides le ko ci ay partenaires internationaux ba nopi dal di sukkandiku ci li nga xamanteni moy ben période bi nga xamanteni lepp lo xamanteni waron ni diriger ci li nga xamanteni moy diplomatie sénégalais jarle ko ci li nga xamanteni moy continent bi dina promettre bépp intérêt économique bo xamanteni li di Sénégal daf ci wara bénéficier wu ba noppi di établir lepp lo xamanteni ay partenaires commerciaux lucratifs jarle ko ci yenen rew yo xamanteni meuna attirer ay investisseurs étrangers également daal di liggéey renforcer les plans comme dafa jëm ci relations extérieures Fiche Sénégal en ci ak ay réew yoo xamante Afrique la ba noppi daal di promouvoir les loo xamante ni la sécurité régionale bon appui indi ay connexion et xamante ni ci fort utile lañ ko pour attirer les loo xamante ni ay intérêt la fii ci Sénégal ñu teg ci scène internationale bi nga xamante ne benn point de vue la lal malgré li nga xamante ne mooy ay choc interne jaarle ko ci li nga xamante ne mooy Covid 19 bi fi jaar ak guerre Ukraine bi mu doon ay efforts yoo xamante ni tey suñ ko mettre en œuvre jaarle ko ci plan Sénégal émergent bi nga xamante ni 2014 ba 2023 dañ ko associé ak ay mesures d' intervention yoo xamante ni dafa adopté wu jëm ci approvisionnement boo xamante ne bu correct la jëmale ko ci réew yi ginnaaw bi ñu génnee li nga xamante ni mooy vaccin bi ba noppi daal di joxe lépp luy ay résultats positifs notamment maanaam lépp loo xamante ni mën na indi ben croissance économique ba nopi doon li nga xamanteni dafa robuste ñu daal di koy résilier jaarle ko ci tout au long li nga xamanteni moy ben période de crise bo xamanteni dañ ko tiré won ci par investissement yo xamanteni lepp luy important réforme yu structurelle daf ci sukkandiku ko mu doon ben base bo xamanteni fi lañ ko utiliser won fi ci Sénégal mu doon lepp lo xamanteni tay tey di docteur Thierno Thioune xamale na ko jëmale ko ci kii nga xamante ni mooy euh, amadu Ba di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar donc tey am na bépp atout boo xamante ni mooy stratégie boo xamante ni mën na développer lii nga xamante ni mooy état jaar la ko ci benn économie bu croissant ki ko xamle nag du kenn ku dul docteur. Euh, Thierno Thioune mu doon ki nga xamante ne tey mën nañu jàpp maître conférencier la titulaire de li nga xamante ne mooy université Cheikh Anta Diop bu Dakar di UCAD actuellement mu nekk directeur li nga xamante ne mooy centre de recherche économique appliquée di CREA par ailleurs moom ci boppam muy membre comité d'orientation observation de la qualité de service financier ak li nga xamante ni mooy membre conseil scientifique ak li nga euh, direction jaarle ko ci prévision ak lépp lu jëm ci étude économique ba noppi nekk foofu ci ministère du finance et du budget également mu donne aussi membre équipe li nga xamanteni moy scientifique nek fofu ci centre d'analyse bu prospective bu Afrique Cap Afrique jaarale ko ci université bi nga xamanteni mom moom tuddé Alberta nek foofa ci Canada ba noppi mu don membre association bi nga xamanteni international économique jaarale ko ci ay langue française, ainsi que li nga xamanteni mom la don mu don reviewer jaarale ko fi ci African Development Review muy a réew foofa ci Banque africaine de développement muy BAD ak ay activités yo xamanteni dafa sukkandiku ci recherche ba noppi mu daal bénéficier au lit di financement du gouvernement français jaarale ko ci le cadre bo xamanteni lepp lu sukkandiku teesam am ak doctorat am lii di thèse bi ak doctorat am université bi nga xamanténi moy Montpellier ak université Cheikh Anta Diop de Dakar ginnaw lool nak la am li nga xamanténi moy agence universitaire jaarle ko fofu ci francophonie ak l'idée di gouvernement roumain dal di sukkandiku ci financement bi nga xamanténi moy mooy Eugène UNESCO jaarle ko ci séjour doctoral am bi nga xamanteni amna ko ci université d'Unărea bu nek fofu ci Jos nak euh, Galiti, fofu ci Roumanie ba nopi bok ci li nga xamanteni moy Collège Syria ba nopi am li nga xamante ni primé ko ci cadre bi moy programme de subvention jaarle ko ci thèse bi nga xamanteni tay mom la bénéficié wu si financement bo xamanteni poste postdoc la dem fii ci gouvernement français nek ci Sciences Po bu Paris moy docteur Tierno Thioune ginnaw bi nga xamanteni ni joxe na xalaatam ci fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xamanteni ñom ñoy jonganté pour jiite li nga xamanteni moy senegal Sénégal ce 24 mars lenn dal la ci japp ki di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ben, stratégie d'émergence économique bi nga xamanteni na Sénégal bu baax a baax muy xalaatu kii di docteur Thierno Tchoun.